aw lébu bey moo bëgg nag gis ngeen ko jël na nag yi di koy daan nag war koo yegal ci horaire bi ay sa ba ñi moo bëgg nag aw doo bàyyi nag yi joof yook ey ñoom Malta bar nag am na lu ñuy wax ak ñoom foro bar ñi mafia Espagne bi ana foro foro boo nigi nii e Malta yaa ngi gis sa bopp yaa ngi gis sa bopp ah Feugueu gi noonu Malta gi ne ñuul kuk kuk kuk xam naa Malta moom fi mu nekk Espagne moom di nga mun a sangu bu baax a baax comme sa ñuulaay bi deñ acca Malta ngi noonu Feugueu ngi nen eh, Sofër dalal kii mbër la rek mbër la mbër bu bugg naka gi nii eh eh eh eh jàppal nag baa ngay daw de <laughs> gërëw lu leer la bëre démb Medina Fadial mu jël lamb bi démb ci kaw laay njaana xaw ma njaana xaw ma prise démb moom waa bag ñi dañ laa dañ laa sos dañ laa yebal moo tax nga lu leer démb booy nag bi gaañu la ah dara e mbulu xe waa yëkkatil nag bi na gaayin apprenti bu mag baa ngi noonu nag mbuloo képp ku bugg a dem fat-fat bien fait nga egg 17 heures 17 heures et demi ah dugal ci horaire bi li ko tàmbalee Diofior boo caajaay Sandiara luuli horaire baa ngi nii à partir de deux heures lay départ ay mu jóg aca moo nga <laughs> <laughs> Wala Sikambay bu mak bakri anu pula Mamda mat taku bomounu mak aki sit Ate ap Ala somet prase